asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuy na len bu baax si len di am mbégte une defal len vidéo vidéo bi nak mbégte laa parce que Eto'o dafa mel ni na ñun sénégalais pas besoin ñuy tontu euh, ki di John Terry ancien défenseur ancien capitaine de Chelsea mi wax ne euh, Sénégal 1 la am nañ jàpp si seen benn 1 parce que ñom ñoo am 99 pour gagner match bi xam donc euh, voilà Eto'o moom tontul nañu instant ça ñoy xaar nak Elad Hadj day tontu man mom bon sañoon ñu toog xamuñu dara ñu mënuñu dara buñ duggee ne ba ba administratif la ñu wan leen tey ngeen di gis ay gay de tay rek ngeen am problème donc mais Eto'o moom dañ koy sante gërëm ko parce que tontu nañ néna Angleterre xamoon il faut ngeen xam ne mosul gagner coupe d'Europe ben ñi ñuy dajal dañu jël coupe d'Afrique ay champion lañ manam Sénégal si fàttali te muy wax ne mu nekk benn coupe du monde lañ gagné coupe du monde ñëpp xam nañ ñoom demee 1966 bii bi sax leerul ba pare coupe du monde boobu noonu 16 équipes la woon 16 équipes la woon du coupe du monde donc dèjà foofu di gagné doon na ñaari ñaari balaa dara di xaw ñaari ñaari directeur yu am doole yu am maanaa yemul foofu mu ñëwaat ne leen bu leen fàttali Sénégal dañoo am benn capitaine de classe mondiale. bokk si meilleur défenseur du monde yi xam naa foofu day gaar waale ñoom ñoom ñu kii Maguire ak seen i défenseurs yi pour wane ne rek moom pour fu mu teg Kalidou Koulibaly quoi bu mu ne défenseur de classe mondiale xam nga Eto'o dafa jàmmaarloo ak défenseurs yi gën a tàng si jamonoom xam nga donc dafa jàmmaarloo ak ñoom Ligue des champions xam moo tax mu ne moom Edouard fi mu teg kii waxawul sax Edouard Mendy mais fi mu teg Kalidou Koulibaly rek pour vous dire ne dafa yor benn joueur de classe mondiale fa la nekk Chelsea nekk xam na leen bu baax. yemul fofu ne mu ne si fàttali capitaine bii may wax di kii di euh, euh, non seulement naanaan la mais seen entraîneur bu leen fàtte ne moo nekkoon capitaine u équipe bi maanaam waa 2002 génération boo xamante ne voilà histoire de du leen fàtte fii si réew mi si wàllum football mooy Aliou nee na boobu non seulement champion d'Afrique bu ko kenn fàtte bu ko kenn xeebal loolu noonu ba pare moo nekkoon joueur 2002 génération bu ko kenn xeebal ndax entraîneur bi muy jàmmaar loolu wala jàmmaarloom équipe bu mag bi mu gën a yor ci àddina bu mag Middlesbrough la foofu dafa bëgg yëkkati Aliou Cissé pour wane ne Aliou Cissé nañ ko jox cërëm nañ ko jox axam en tant que entraîneur mooy wane fulla ak fayda moo ngi progressé en 2017 ñëw na toog quart de finale coupe d' afrique bi si toppaat mu dem finale dayeeg algérie bi si toppaat mu gagné mu dem coupe du monde mu toog premier tour bii mu dem huitième de finale ba pare dafa ambitieux donc Eto'o lii lii sénégalais yi ñun sénégalais tontul nañu quoi déjà wax na leen 1966 ñëpp a ngi fàttali ko juddoo gu ñu woon fekkeewuñu ko mais histoire yaa ngi nii ku bëgg nag dama wala nga dem Google nga tàppee histoire coupe du monde ñëpp gis nañ bii bu liti bii boobu xamante ne dara leerus on se rappelle tous bokk na si lii euh, goal line technologie lu mu réglé bii xam day kas nii xam nga donc boobu noonu ñu ay ñu bëri ñu naa ay magu yi la ñii ku nekk histoire am daal moo ngi fi maanaam dafa bëgg wax foofu Angleterre bu mu yab Sénégal nañ dafa lu jox Sénégal cëram ba tax na moom boo xoolee euh, dernière phrase dana man Sénégal mooy sama favori yemul si mooy sama favori mu ne da da leen di yéeg ils vont marcher sur l'Angleterre maanaam lu ñu leen war a fekk foofu war na leen ñun ñooy ay gaynde non merci Eto'o merci Eto'o si si kàddu bi ndax boobu léegi nag kàddu yaa ngi jën dinaa leen defal vidéo ñiy wax ñëpp di ngeen ko xam vidéo yi toog leen resté connecté sur seen football TV léegi léegi di dinaa leen andil entraîneur bi li mu wax entraîneur bu Angleterre dinaa leen andil euh, kii di Wenger li mu wax plateau l'équipe de euh, l'équipe du soir restez connectés sur football TV kanam enchaîner vidéo à peu près euh, qu'est-ce qui se dit sur le match Sénégal Angleterre mais ak merci à Eto franchement tantôt nous, tontu bi bi euh, pour wax wax ju rafet c'est au staff de Cissé xam ñu jël wax ji tek ni ay match bi suñu bekkel lañu wara dañu Afrique suñu borom may na talent te li ñuy def nañ ko man et amuñu dara dara dara lu ñuy ragal kii di Angleterre y a rien li mu Eto'o li muy expliqué loolu rek la la bëgg a expliqué la la bëgg a expliqué on a tout pour battre l'Angleterre te moom euh, carrément gëm na Sénégal donc mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi maa leen di jëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV asalaamaaleykum